njiitu nag groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar Abdou Mbow daal dinay rek wax jëm ci nag li nga xam ni moom moo ñel nag gouvernement bi ci na muy doxee mu ni itam rek ni ñoom nag lajj nañu rek de bu baax nag jamono ji ci li nga xam ni moom la gis ni moom la ñuy doxee kàddu yi sax nag suñu natango yi di waa l'Observateur la ko daal di dénk ndax nee na boo seetloo rek jëm ci na ñuy doxee rawatina nag taskatu xibaar yi jamono ji nañu àndee ak ñoom wute na loolu ak nguur gi fi yu nekkoon nag ba tax na mu ñuy metti na loolu ci ñoom ab Mbow di ci dolli itam rek wax jëm ci li nga xam ne rek moom lañu doon xaar ca ñoom dara amagu ci ca engagement yu ñu jëloon kon Faras daal di xëddeem ba tey rek dara dara gisaguñu ko ci mu mel ni ay naxemaay kon dong rek la ñu gis yamuñu ca la ñu def mooy jàpp rek ba jaxate ak imam Cheikh Tidiane Ndaw ak yeneen yoo xam ne ñu ngi koy def ca suuf ndax dafa jëm ci wàllu diffamation te ñu ni diffamation yooyee ku ci mel ni Ousmane Sonko na ni bu fekkee dañ la rek def diffamation te yow mi ñu ko def porté woo plainte kon nag procureur warul autosaisir maanaam warula wóolu warula jël ci benn yoon waaye mu mel ni kon leneen lañu gis nag lu bokkul ak la nga xam ne waxoon nañu ko nekk ay jafe-jafe yoo xam ne kon mën nañu koo ci duut baaraam ni ñoo ngi koy daal di dund te ñoo ngi koy daal di gis taskatu xibaar yi tam rek ñu ko commencé di leen wóolu te loolee mu nekk tamit lu doy waar lu ñu xalaatul woon lu ñu xaarul woon waaye mu mel ni kon nag ñoom la ñu waxoon donc dara defuñu ko ci ndax appel à candidature bi itam rek gis nañ ni nali la ko tegee kon la leen neex rek la ñuy def leneen la ñu gis kay wala leneen la ñu jàpp ni fii mu nekk ni noonee la ñuy doxalee réew mi waaye bokkul ak la nga xam ne diggee woon nañu ko wax ko askan wi ba ñu fal leen Alioune Tine moo jiite jomm Center di xeex itam rek jëm ci ak ak yelleefu doomu aadama daal di àddu jëm ci tolluwaayu réew mi jëm nag ci wàllu politique lu ñeel état bi ak kile di Ousmane Sonko moom mi jiite jëwriñ ñi nag ma ngay wax jëm ci li nga xam ni rek moom la ñu teg uh, ci ndoddam mu daal di koy jiite nag jamono ji muy nañu xam ni nag Bassirou Diomaye jaxaar fay moom lu jëm ci wàllum boru politique rek Ousmane Sonko la koy jox ndax moom moo tax kon euh, mu nekk rek njiitum réew ndax moom la gis ni moom rek moo fi sës kon moom rek la ñuy daal di fal euh, jamono jooju itam rek ñu gis ni li fi amoon tamit loolu yépp kon ma ngay wàññeeku ginnaaw ñoom mbëbët yi nga xam ne am nañu ko waaye tey ji nag leneen euh, bokk na ci rek li ñu war a def mooy nit kon Ousmane Sonko ànd ak moom ginnaaw taxawaay bi nga xam ne def nañu ko ci wàllu rek ñetteelu alternance démocratique